من ظن أنك تواكي البصر والجن والملك لن يبصرا هاك سواك خيره من الورى وأنت خير من إلهي زورا mbokki julli ji mbokki taalibe yi gannaaw ba nu sante yàlla julli ci yonenteem ba sant si Ahmad Bamba Xaadim Rasuul sunu yaakaar tey ak ah su ngeen déggee baytu xasaayit yu am solo yooyu ngeen xam ni sëriñ Mbàkke yëkkati na ko ci jataay bi ngeen xam ni ndigal bàyyikoo na ci Cheikh Muntaqa Mbàkke xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg lool te wér wàcc nag ndeysaan ci yàlla sëriñ Alaaji Mbàkke moom sëriñ Basiiru Mboor jàmbaari sëriñ Tuubaa ja waaye nag wàcc ci Baay Mor Nger taalibeem ba xaritam ba soppem ba wëllëreem ba ndeysaan waaye nag wàcc ci sëriñ Saaliw Nger jàngkatu xasaayit jàmbaari sëriñ Tuubaa bis bii nga xam ni moom la baaxoo defee waaye mu ko daan amale kër wele waaye mu jot ndigal nag ci waajuram bu baax wa Baye Mor Nguer noo ngi ñaan yàlla na fi yàgg te wér bis bi nag Serigne Saliou Nguer koy woote di ci sant Serigne Touba waaye di ci sant nag soxna Fatja waaye di sant mboolem njabootug Serigne Bassirou Mor gépp bis nag kañ lay am ah le 25 mars rek lay am Serigne Saliou Nguer nag mi koy defee forage boo ñëwee ba forage arrêté taa boo la tegtal kër ga mbaa nga dégg rajo yi bis bi nag Serigne bi mu ko wootee da koo tudde jàmbaar Serigne Cheikh Mbacke Pakala bis nag boo ko wootee ci Pakala ah tudde ko Serigne Cheikh Mbacke Pakala wàcc nga waaye bis bi Serigne Saliou Nguer dara jaale ko jàmbaar soxna moomi faal moom Serigne Mbacke Fall moom Serigne Muudu Mbenda moom maam Cheikh Ibrahima Fall daa bay maam Sey Ndiaye waaye bis bi nag mu marraine ko soxna su baax soxna Faati Mboose Fall moom la marraine bis bi waaye bis bi tam Serigne Saliou jël ko ab cër jox ci soxna Seynabou Fall moom itam maree la ci bis bi waaye mu tànn nag ñaari jàmbaar yoo xam ni bu saaliw musaan na toog nu toog ci jagginnaawam di ko aw sëriñ saaliw delloo leen njëkkal ci bis boobu mooy kan sëriñ bàcc xumma jàmbaari sëriñ Tuubaa ja wóolëre sëriñ saaliw soppem ba waaye sëriñ mahamadan jeng moom itam soppem ba wóolëreem ba ngir nag ñëw rek ànd ak sëriñ saaliw bis bi taxawu ko ci bis bi kon nag mbokk yi bis ba bis baa ngi noonu sëriñ saaliw nag danañ jël ay kaddu jox Cheikh Ibrahima Loum mu woote nag ci mboolem soppe nga xam ni nu dëkk ci pakala waaye nu jël kaddu jox sëriñ Mbacke Dieng moom itam mu woote ci mboolem soppi yi nga xam ni noo dëkk kër waaye nu jël kaddu jox soxna Wali Mbeng moom itam mu woote ci soppe yi jigéen yi ak waa waañ wi ak daayira bale yi nga xam ni ñoo dëkk pakala waaye dana jël kaddu nag jox Seex mu Moustapha Nguer mu woote ci bokk yi ak kuréel gi ak mboolem jànkatu xasaayit waaye nu jël kaddu nag saan jox Serigne Saliou Nguer mu woote bu paree rek ñu tëng kaddu yi kon mbooloo mi bés baa ngi noonu bu ñu xëyee daana jàngal xuraan bu ñu demee ba digg bëccëg nu bernde waaye bu ñu xewloo nag bis bi nag tey bëccëg lay doon bu ñu añee rek 14 heures 15 heures mu tàmbali nu waxtaane Serigne Touba jox jànkatu xasaayit kon nag mboolem ku ñu war a jox kaddu rek kaddu gaa ngi noonu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaare jiital ci nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaar suñu borom guddal fanam waaye wéral lay ciram ak mbooleem njaboori Cheikhul Xadim gi buñ gisee jotaay bu am solo bi nga xamee am nañ ko fii ci quartier Soxna Fadja di Touba Pakala bis bu tedd boo xamante ne ni ñu ngi koy waajal fii ci Touba Pakala ci njiitale Serigne Saliou Nguer ak mbooleem mbokki julli yi nga lañ bokkal ci gox bi bu ko defee ñuy woote ci kaddu daayira yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Touba Pakala ak digganteeg Daaru Karim jiital daairatu mun nawir sudóor njiital sëriñ Ibrahima Loum ak sëriñ Mbàkke Njaay di ci woowaa daairatu minanul baaxil xadim jiital sëriñ Góora Lo ak sëriñ Seex Ngom di ci woowaa daairatu laa ilaha illallah muhammadu rasulillah jiital sëriñ Fadilu Diop ak sëriñ Moussa Gueye di ci woowaa daayira kansul muhtadin jiital sëriñ Moulay Diagne bu Daaru Karim di ci woowaa daayiratu wa laqad karam na njiital sëriñ Abdoulaye Ndiaye ak soxna Awa Faye di ci woo mbooleem mbokk yi nga xamante ne ñoom lañ bokkal waa gox bii di Touba Pakala ak waa quartier Soxna Fadja di leen ci bu baax ci liggéey bi di leen wax ne programme bi rek incha allahu taala bu ñu xëyee mu war doon ajuma bi ñu jëm ni ñaar fukk ak juróom ci weeru mars bi danañ fa amal programme ci wàllum liggéey ba bu ko defee rek bu ñu xëyee ñu fas yéene ànd ak mbokk yi ak soxna yi ñëpp ci liggéey ba ni nga xamante ne noonu la ko Serigne Saliou bëggee suñu borom defal ñu tawfeex ba bis bi bis bi dépôt ci ak tawfeex bu baax a baax wax ne jot nañ ci ndigal ci Serigne Cheikh Mbacke Pakala mi nga xamante ne mooy sunu jëwriñ ci gox bi nii muy soñi mbooleem soxna yi fi nekk ci quartier bi wala soppey Serigne Saliou yi fi nekk muy ci góor ñi muy ci jigéen ñëpp ak waa kuréel la bu maam Cheikh Ibrahima Fall njiital Serigne Abo Sow ak waa kuréel Sikrullah bu Serigne maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Mbaye Gueye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen ciy woo bu baax a baax di woo santit bu baax suñu soppe yi nga xamante ne liggéey bi ci ñoom la bàyyeekoo muy Serigne Mbacke Ndiaye bu Kerwele di di ko ci woo di ko ci woo mbooleem mbokk yi nga xam ne ñoom àndal liggéey bu baax a baax a baax di wax ne ngeen ñëw téetanuñ rek ñu fas yéene and ànd ak yéen ndax liggéey bi yéen ko doon doxal naka jekk mu daal rafet waaye ñi ngi ñaan di leen ci woo ak mbooleem sapp ya nekk di wax ne daal koo xam ne yaa ngi dégg sunu kaddu rek muy góor mu jigéen ñu ngi leen ci woo ci bis bi incha allahu taala fas yéene ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëgg rek mu fas yéene amee noonu incha allahu taala wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki Euh, képp koo xam ne yaa ngi dégg suñu kàddu rek ñu ngi lay nuyu di jiite nuyoo bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal suñu borom defal ko tawfeex mu daje ngërëm la Serigne Touba te ñun ñëpp ñaan ci ngërëm loolu. Euh, mu mel ne comme ni nga xam ne mbokk yi fi jaar ni ñu ko waxee rek bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal mu doon lenn loo xam ne kenn ku nekk bàyyi na ko xel jamono ju nekk Euh, mu mel na ñun li ñuy fare kenn ku nekk dafa am loo xam ne li nga bokk ak li nga moom ak li ñu la boole mu mel ni lii tamit dañu ko moom ñun ñi nga xam ne yàlla dogal na mu nekk ci suñuy loxo ñun ñëpp ñu bokk loolu nag mbokk mi fi jaar comme ni mu ko waxee léegi rek wax ji doy na sëkk pour moom mu woote xanaa dañuy woote rek ngir ne euh, lu baax du doy kenn ku nekkit bàyyi xel ne yëf suñu yëf la ndax dañu ko daan defee ca béréb bi nga xam ne fi la ñu nekkoon yàlla dogal na yaatal ba mu ñëw fii ñu war a fekk si ñii nga xamante ne bi ne ñoom la yàlla dogal mu ne seeni loxo may woo ñi nga xam ne ñooñu la ñooñu loon ñu gox bi ñu ko nekkaloon ñu ñëw ànd ak ñoom ngir jëm Serigne Touba te xam ne lu baax la lu am solo la ñun ñëpp ñoo ko war a bokk war cee jàppoo bis bi nag dañu koy woote ngir di sant Serigne ñu koy woote ci ay teggin di ko woote tamit ci ak lépp ñuy ñaan yàlla suñu borom defal ñu tawfeex ba ni ñu ko commencé bisimilah rahmaani rahim ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamina yàlla daje ngërëmal Cheikhul Xadim ñi ngi ci woo ñëpp baatu ñëpp nag bàyyiwul fenn baatu fépp it bàyyiwul kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum wa taala barakaatu maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant ñëpp man nag maa ngi wax ci tur jigéen ñi laay wax ci mbalem koñ bi ci lay wax di ci njiite soxna Binta Gueye mooy suñu njiit moo ñu fi yebal ak soxna Faat Jeng ak ak Adama Jeng ak Adama Ngom waaw ñun nag ñoo yor kuréelu jigéen ñi fii ci mbalem eh, koñ bi sëñ Saliou Nguer mi ne yàllaa ñu ko ñoo moo ñu booleeg moom fii ci koñ bi daa am cant gu muy def chaque année daan ko def fee ca Daaru Xuddoos tey mu ñu ko indi fii ci ci Touba Pakala ñu ko ci sant nag bu baax di ko ci gërëm di woo mbokk jigéen ñi mbokk taalibe yi mbokk dëkkandoo yi maire yi ñu jiite Touba ca kanam yi ci koñ bi fii bàyyiwuñu kenn di leen wax ñoom ñëpp nañu génn jàppale eh, eh, sëñ Saliou nger mii ci bisam bi xam ne bis bi nag suñu bisam ki ko doon defee fale Daaru xudos andil ñu ko fii war nañ cee kontaan lool waaw génn taxaw ko ci bisam bi bu baax ne jigéen ñëpp teel a génn teel a jàpp ci yëf yi waaw ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñëpp ci sant Saliou nger bu baax a baax a baax a baax ndax nekk na ci koñ bi nekk ku baax ku bëgg Serigne Touba waaw ñun nag ñu ngi ni topp ci ginnaawam rek fu mu woote. ñu ngi ci ginnaawam waaw tey ba suba ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci kàddu jigéen ñi nag laay waxee góor ñi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci bis ba ñu commencé ko bisimilahi rahmaani rahim jeexale ko alhamdulilahi rabbi alamin di leen sant di leen gërëm jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen yu baax di leen siyaare Eh, di si jiital Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na ko suñ borom yàggal te wér di siyaar xalifa eh, soxna Fadja Serigne Talla Mbacké ah ñuy woote bis bu mag bis bu màgg bis bu tedd boo xam ne ndigalu Serigne Saliou la woon Serigne Saliou Nguer mi di ko woote fii si Touba Foras ah ñuy jiiral si woote bi sëriñ Alhaji Mbacké moom Serigne Basirou Mor di seteeg Serigne Mokhtar Mbacké moom Serigne Abdoul Ahad Mbacké di sa teg sëriñ Seexul Xadim moom sëriñ Siidi di sa teg sëriñ Mustahin ibnu sëriñ Abdou Xadim ah ñoo ngi si woo sëriñ Aliou fay Ngaaga di si woo Caat Amar di si woo sëriñ Abdoulahad Diop di si woo sëriñ Mourtala sa Ndoyeen ah, di si woo sëriñ Moustapha Fati eh, Njaay di si woo sëriñ Seex Jaxate Eh, di si woo mbokki mbokki yëpp nag muy mbokki daara àndaar ñoo leen di woo si njiiral Baye Paate Ndiaye si njiiral Sëriñ Alhaaji Ndiaye fii si Touba eh, di si woo eh, mbokki nger nger si njiiral Sëriñ Njaga Nger ak mbokki Kebe meer ñu ngi leen di woo soxna maam loo Kebe ñoo ngi koy woo si bis bi di si woo jànkari xasida yëpp nag waa daayira Mawaahibu Naafi si njiiral Sëriñ Xaadim Gueye fii si Touba ak euh, mbooloom sëleer yi nekk Touba sëriñ Cheikh mbay Diouf jiite jiite fii si Daaru Xuddoos ak mbooloom jànkari xasida yëpp ñoo ngi woo mbooloom ëtti kër sëñ Touba yëpp nag ñoo ngi leen di woo sa xam ni bis bi day dëppoog le 25 mars fii si Touba Foras asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe maa ngi leen nuy nuyu baax di leen siyaara di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu te wér nu ngi siyaare baax suñu wajur yi nga xam ni ñoom lañu yàlla booleel ñu ne ci kaw suuf di leen ñaanal suñu borom yàggal leen fi te nu wér di leen fàttali bis bi nga xam ni moom lañ baaxoo di ko def di sant Serigne Touba Serigne Saliou Mbacké ren mu tombe ak le vingt cinq mars ñu di ko amale fii ci forage Touba Pakala nu ngi woo mboolem jànkati xasida yi nga xam ni ñoom la ñu seqal tool bi sëñ Tuubaa bi di ci jiital sëriñ Xaadim Gueye ak Cheikh Mahamadul Mahara Chak bu ñu ko tuddee rek mel na ne tudd nañ mboolem jànkati di tudd sëriñ Modou Nguer mi nga xam ni mooy sunu kilifa ci njabootu sëriñ moor nger yëpp euh, di nuy bu baax sëñ Moustapha Nguer mii nu feggool di sunu mag di suñu lépp di suñu jëwriñ ci xasida yi euh, di suñu féete waaye di nuyu baax sëñ Abdou Lahad Nguer mi nga xam ni moom la ñuy bokk nekkal fii ci daara ji Euh, te nu féete ci moom ñu jox ñu ko depuis ñuy gone ba léegi nu ngi koy siyaare di ko ñaanal suñu borom defal ko xéewal euh, defal ko wërsëg ci doole xaside yi nu nuyu baax soppe yi ñuy seetaan nag euh, góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuñu kenn bis bi nag ren ma ciy ñaan lépp lu ma ci ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nangu mag ñi nga xam ni ñoom laa dëkkaloon fi la ci jàkk ñu ko kebe buñ ci tuddee rek ñaar dana mel ne tudd nañ mboolem yëpp Euh, ñu fas yéene fàttaliku leen ci rendre hommage ñaan leen ci alxuraan ak xasaayit lépp luñ ci jàng wala lépp luñ ci ñaan yàlla ko yàlla nangu te sotti leen ko ca bis bi alxuraan ak xasaayit rek la sëñ Tuubaa génnul sëñ Tuubaa benn yoon kon nu ngi woo mbokk yi nga xam ne fa la ñu juddoo fa la ñu yoroo fa la ñu namp fa la ñu defee lépp muy waa jàkka ñu ko nu kenn waaye nag fas yéene ko ànd ak waa Touba Foras Pakale ji ñu fekk si nga xam ne suñuy soppe lañu fekk si ak suñu sëriñ sëñ Cheikh Mbacke Pakala di ko ñaanal suñu borom suñu borom fan ko gudd gudd wërsëgu yaatu lew di ñaanal baax sëñ Ibrahima Loum mii nga xam ne mooy jëwrin ak sëriñ Mamor Fall ak sëñ Ibrahima Sëy sëriñ Mbacke ñag mi nga xam ne moo nekk Kërëwele ñu ngi siyaare ñëpp di jël nuyo bi eh, ak siyaar di ko teg ci seen loxo eh, di daane foofu sunu kàddu xam ni eh, saa bu nu tuddee bis bi rek sëriñ Touba mi nga xam ni moom lañ koy defal moom lañ ci jiital moom lañ ciy mujjël waaye nag bu nu tuddee sëñ Tuubaa tudd Cheikh Ibrahima Fall. di ci jiital nag kuréel gi nga xam ni ñoom la ma yàlla booleel ci xaside sëñ Tuubaa yi nga xam ni nu ñu mel rek ba ñëwoo wala sant bu baax di leen beral seen cantu bopp ci njiital sëñ Abdou Samb bi nga xam ne moo fi teewal mbooloo mi yëpp ak sëñ safaan mi nu feggool nu ngi li di ñaanal kenn ku ci sëg bëgg ci xaside sëñ Tuubaa yàlla na ci yàlla gàttandoo ci doolee xaside yi. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi kon bis baa ngi noonu noo ko déggandoo mars rek lay doon ah fii ci Touba Pakala rek forage Serigne Saliou ngir jàmbaari Serigne Touba woote boobu nga xam ne koy woote waaye nag rendre hommage ñi nga xam nag ñoom la dëkkalante kër wala ñu bàyyi koo fi ñoo ngi ñaan nag lu ñu fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu ci barke Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul soñu ñun ñëpp woo na ñëpp bàyyi wuñu kenn kon nag mbokk ñun ñëpp nu tàllal suñu loxo rek nu ñaan yàlla ci barke Cheikh Ahmad Bamba xaadimu rasul mada ilayka allahu fadlan sahra kama ilayka xaadama lam yasara maduka ajaza allazi tafakkura ahmala ya xayra basirin sakara